ma ni mhm. ba ci sax euh, Masaalikul Jinaan mhm. xam nga tàddi nañ ko mhm. nga xam nga jël ko di ko denc téye ko di ko denc naa jox xalaat xaaj bi nga xam si ne dañuy tënk yoon mooy bépp ak yàlla bu ñu bëgg nit mel ko nga xam ba am ci tàddi denc ko joxe ko nga ko jox kenn mu dem yéen ndànk ci xelam ba ba mu convaincre ba mu dugg si lu gindi kenn lay teg ci dàmbal euh, ba tey nga jël ci nangami bayit rek Mm-hmm. yow nga taalibe ci anglais bu leer rek mm-hmm. eh, def ko ay ñetti kayit ñeent rek mm-hmm. da ko rek di ko joxe ndànk fa ndànk rek ko joxe mu ma intérêt dugg si loolu boobaa def nga yiw wala daanaka ëpp a sàgg nag te it nag eh, noonu doogu la war a mën a demee rek maanaam fi mu toll ni saaba yi fa yonte bi tolle woon dine ñoom ñoo ko fa jëlee ni ko cas yóbbu yàlla ko magi moro di yi fi suñu tubaab dañu daan dox rek di tukki nii. Mm-hmm. waaye tukki bi dañu daan gën a jublu nag mooy tasaare yoon Sëñ Tuubaa. Mm-hmm.